leneen parce que bu ñu nekkee rëbës du ñu tëdd donc loolu mooy condition yi. Mhm, bi ngay dugg 250 275. bi ngay ci kaso bi nu mu demee woon bi ngay yegg si. yegg si jaar romb bureau adjudant romb fi ñuy dencee yàpp yi romb néegu Khalifa Sall tourné tourné egg ci. ginnaaw mur bu ngeen di gis bu ngeen di jaar ci corniche. déshabillé ou pas bu kawe bi ak dessin yu nice yi en plein air ñu ne la simeekul taatu neen donc man dañ ma def taatu neen euh, dégg naa ñu naan ñëpp la ñuy def taatu neen ce n'est pas vrai ñëpp la ñuy fouiller c'est vrai mais fouille mun na ñàkk egg taatu neen am na ñoo xam ne dugg nañ rëbës ba génn kenn mësu leen def taatu nen man dama bokk ci ñu ñu def taatu nen xëy na sax ñeneen ñi ma àndal boo gisee ñu def leen taatu nen c'est parce que man dañ ma def taatu nen. mais mais li nga man li nga wax ni je me rappelle Moussa mm, ma jambal ma jambal Diagne euh, bi mu duggee ci jamonoy Abdoulaye Wade euh, li nga wax ni wax na ko nee dañ ko futti ba mu ni dum euh, di ko di ko seet loolu est-ce que nekkul loo nga xamante ni ci règle yi la. booy dugg booy dugg moom mooy li ma wax man. mën naa la jox ay lim ak ay lim ak ay limu nit ñu nekk rëbës dugg nañ te kenn defu leen taatu ne. dañu acharné wu ci yow nga jàpp bokk naa en tout cas ci ñi nga xam ne dañ leen def taatu ne donc fuy bi oui. mais taatu neen bi mën na fa bañ a egg. Mm-hmm. man mosuma détourné mosuma sàcc kenn mu kenn xamuma tux yamba ba jaay drogue donc boo ma defee taatu neen lay wut. mun naa mun naa comprendre nga dégg ne Guimari Sagna am na ay antécédents. xam nañ ko ñu ñu leerlu Guimari lettre bi ñu doon wax te mu juróom fi coow ci ay ci ay jamono lettre boobu yaa ko bind wala naka la demee. binduma benn lettre. Ah. gisuma lettre. ndaxte foog naa ne bokkoon naa. ci prisonniers :fra yi